internetu allo Sénégal dal leen ak jàmm mel ni nag match Sénégal Égypte bi nga xam ne ñëpp a ko doon xaar tey jii lay doon fu 17h jotee gannaaw bi nga xamee ne nag ñii di waa Égypte ak Sénégal yépp ku ci nekk nag amal na sa séance d'entraînement foofu ca stade maître Abdoulaye Wade. Ah, si loolu kii di Aliou Cissé entraîneur des Lions di woowaat rek ñi nga xam ne ñoom ñooy population sénégalaise bi ñu ñëw rek soutenir ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Lions yi waaye di leen ñaax rek ñu respecté li nga xam ne moom mooy hymne national yi nga xam ne dinañ ko santé foofu. surtout rek bu égyptien bi loolu rek di delloo siwaat xelu sénégalais di wane rek ne sport leen nekk fair play leen wax mën neen a jouer supporter ñi nga xam ne ñoom ñooy seen équipe te duñ benn sabotage match bi nag mu mel ni Sénégal seen bakkan leen ci teg gannaaw bi nga xamee ne nag ñoom commencé neen supporter te match boobu dooragul ndax sénégalais rek démb ci mbedd yi leen fanaan ku ci nekk rek di sante li nga xam ne moom mooy hymne national bi waaye tamit di supporter ñi nga xam ne ñooy suñu gaynde yi loolu di mel ni ndam rek la Sénégal Sénégal soxla waaye tamit pare neen pour soutenir ñi nga xam ne ñoom ñooy gayndee ndax dineen ànd ak ñoom foofu ci stade maître Abdoulaye Wade ndax door neen ko sénégalais yépp takk jug jubal fi nga xam ne moom mooy jam ñaajo foofu ci stade maître Abdoulaye Wade pour rek ndam li des Sénégal si loolu ay vidéo di circuler ci réseaux sociaux yi muy wane rek ne Mara dafa jóge fële Égypte ñëw rek pour soutenir ñi nga xam ne nag ñoom ñooy équipe bu égyptienne bi mu mel ni nag loolu tiitalul ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sénégalais cadre boobu wóolu neen seen bopp ndax bi nga xamee ne ñoo ngi wax waxu match boobu ba léegi mara yi fu nekk lañu fa léeku ci nekk rekk di wax ci match boobu wax ci doon benn wax ñaani doon benn ñaan ñëpp rekk di ñaan équipe bu sénégalaise bi dóor li nga xam ne moom mooy Égypte ndam li des biir Sénégal waaye nag mu mel ni fi ak ngoon lépp leex internetu Allô Sénégal xibaar bi leen leen doon dégtal bu leen fàtte abonné pour jot suñu yeneen xibaar